bu baax di am mbégte teewaat fii ci ndimbalu suñu borom ak kattanam di sant yàlla bu baax euh, tey ànd ak yéen ci 30 minutes chrono comme ni nga ko defee jeudi gu ne alxamis euh, bu heure bi jotee ci solution info TV di gërëm ñëpp di leen sant tey ji ñu dellusiwaat ci actualité ginnaawu 100 jours samedi incha allah Diomaye dina janoo ak euh, taskatu xabaar yi wax ci ay points yi jëm ci actualité bi mais ñun dañuy anticiper def les bilans de 100 jours wax tamit les tops et les maanaam ñi ci gën a ràññee ci seen taxawaay mais aussi ñin gën a xeeb ci seen taxawaay dinañ ci jéem a indi ay kàddu ci top yi ak flop yi léegi nag euh, comme la ñuy wax rek li jëm ci wàllu lii di xibaar da ngay xool li la gën a jege la proximité nga wax ci ginnaaw 100 jours yi 100 jours yi nag ñu gis ay nit génn ci ku ci mel ne Mansour Faye wax ne Sénégal dafa nekk ci danger te heure bii moom mu waroon nekk ci danger man loolu laa gëm yéene wu ko nag mais Mansour Faye ak jaar-jaaram tey jii leneen lan doon wax ba war moom mu war a tal di porte plainte ay Mimi Touré wala mu tal génn di dal ci nguur gi loolu pour man waru woon ne nga gis benn Yoro Dia génn maanaam di waxee di du n'importe quoi depuis lor démb dégg nañ ay révélation yi Cheikh Bara def te njort di am njort te dinaa la wax ne njort googu lu tax muy am ci ni Macky Sall la ñuy préparer terrain bi pour mu ñëw en deux mille vingt neuf man loolu dama ko gëm te Mansour Faye nee na ñoom ci loolu la ne maanaam ci entretien bu mu defee l'observateur yooyu boo koy liir ci ñoom delloo si waat Macky Sall ci la ne te loolu boo xoolee ni ñuy doxalee ak Amadou Ba ak ni ñu ko ñàkkalee fayda ak ci élection présidentielle yi jàppale bi ni mu oyofoo woon ci ginnaaw Amadou Ba ngay sentir ni am na lu ñu doon préparé xeeb gi ñu xeeb jomaay nag moo tax ñu jàpp ni jomaay day nekk un président de transition transition mooy daf fi nekkandi cinq ans wala boog mun na fi nekk sax lu loo xam ne du mat cinq ñoom ci boo déggee ñi wax te li dinaa pour quoi may wax ni ñoom cinq ans yi sax dañ koy wax nii mais bu seen pexam matoon cinquants yi du mat man loolu laa gëm léegi nag nga dégg tey jii keneen ak keneen maanaam ngay déglu ci ñoom di dégg di dégg di dégg di dégg après da ngay comprendre lan mooy seen objectif léegi nag est-ce que loolu da ci war a bàyyi est-ce dañ ci war a taxaw xamoo tey jii ku mu ne ci ñun danoo am devoir protéger le projet parce que mbir balaa nga naan baax na wala bon na da nga koy may temps ils sont la pour cinq ans ji nga waa Benno Bokk Yaakaar Sonko warul leen a gën a gore ji nga en mars 2021 ci mbiri Adji Sarr Ousmane Sonko dafa génn kaso mooy bi nu ko jàppee ci garde à vue mu génn gars yi naan ko pale pale am na ñu jàppoon ni sax dañ fa war a jëlee Macky Sall ci moment boobu. mu ne non duñ ko def dañ koy bàyyi mu jeexal mandat am malgré li mu jote woon ak Macky yëpp li réew mi di tàng yëpp Sonko dafa jàppoon ni danoo war a nekk républicain gunge ko ba mu jeexal mais comme baadoo la bu jubee ndabal gàcce fekk tàbbiwu ci wala mu soob ci loxoom du am jàmm Macky Sall njëkk googu la ko Sonko joxoon mais ci diggante bi dugg na fi lu ne ba quatre-vingt et quelques jeunes dee ci réew mi ay milliers de jeunes dugg ci kaso bi ñii réer kenn gisatul leen Fulbert Sambou ak Didier Badji ba tey ñeneen ak ñeneen maanaam yi fi xew ñu gis mille milliards Covid yi sàcc gin ko sàcc ñu xëy naan ay six milliards kase la ñoom milliards kase lañ ci jàpp parce dama jàpp ni milliards du lu bari loo ci sàcc rek garaawul quoi pour ñoom sàcc garaawul ñu nekkoon ak Macky Sall maa ngi dégg Moussa Bokar Thiam bi nu waxee ci mille milliards dafa dem wal fajri taxaw fa naan mille ak kase pour walla ni rek ñoom pour ñoom sàcc lu normal la ci république bu la dénkee alal. war nga mën di ci cof quoi li naan waajoo doon wax naan euh, ko maanaam koo dénk ndabal daxaar wala nga koy jàmbaloo munoo ko téye màcculoo say loxo ñoom danoo jàpp ni alal bu la ko dénkee bu bari war nga di cof di ci lekk quoi léegi nag bi Macky Sonko ak Diomaye ñëwee ñëw ci jub jubal jubbanti léegi nag ci 100 jour yi pour pourquoi a def introduction boobu wax ni rek ñi lappi lappi ci 100 jours yi yëpp ñoom def nañ fi 12 ans yoo xam ne ku leen ko toppee heure bi seen tànk du laal suuf. ñu bari nag nee nañ Sonko ak Diomaye yi non danoo war a jël temps danoo war a def réforme pour justice bi pour mu doon justice bi équitable justice bu lii du lii loolu ku xam njekk ak ak ak ku nite nga koy seqal man loolu laa gëm mais nite wuñu xamuñu njëkk xamuñu bu ci yem. parce que gàtt xel dem maa ngi dégg Abbas Fall ci benn euh, communiqué bu mu bind posté ko mooy bi Abdou Mbow waxee ni day def euh, une question écrite à Ousmane Sonko le premier ministre pour que. mu ñëw di expliquer wu ci ay jeunes yoo xam ne danoo dee ci géej-géeg yu ne di n'importe quoi naan noonu am na marchand ambulant yu dëgër piroon marchand ambulant yooyu non ñaar ci ñoom ñoo ci des ci géej gi ñoom ay junni ñoo des ci géej gi nguuru Macky Sall ana Papito Kara dañ koy xoxotal di ko xoxotal ba mu dee ci géej gi maanaam dem ba amatul jàmm ci réew mi di génn réew mi fa dee ci géej gi Papito Kara loolu démb la yàggul li Abass Fall wax ay Waly Diouf Bodian waxoon ko naan une opposition milliardaire boo xam ne sàcc alal réew mi ba pare bëgg fi nekk di war ñu leen bàyyi ñu noyyi c'est vrai ji nga booy politique da ngay politique jomaay nekkoo jumaa ja nekkoo jàkka ja doo élimaan di nga même la prophète Mohammed pour que mu mën a gouverner teg dafa xeex dem ay xare xeex ba gagné imposer li muy def di nga en politique mos naa ko wax benn kilifa politique mu naan une opposition républicaine ma ne ko ji nga am politique rien ne se négocie tout s'arrache maanaam rien ne se donne sur un plateau d'argent du lu lay may politique rapport de force la te Pastef mii xam na loolu mais rapport de force moo tax Pastef tey jii jël nguur gi du mat laa du waxtaan du dara du compromis du compromission ji nga yooyu bu ñu ci duggoon duñ jot dara dal leen ni nax mais loolu la son ko gëm comprendre ko. ñëw indil leen garsa garsa dem maa ngi dégg Babacar Justin Ndiaye di ko wax nee na Macky Sall erreur bi mu def mooy fekk ay Idrissa Seck ay Khalifa Sall doon une opposition républicaine mu leen di fitnaal ba ne damay réduire opposition à sa plus simple expression loolu moo génnee Ousmane Sonko Ousmane ko ak compris que opposition du noonu dans l' opposition il faut se battre moom la Abdoulaye Wade Moussa wax nee na opposition mook Socrate yam daa métti ku ñemul lu métti doo nekk opposition waaw ku lu métti doo nekk opposition léegi nag mënoo xeex ba jot la pouvoir li naa borom xa baatu neen du xeex ak xeex borom baatu wurus wala borom baatu wurus du xeex ak borom baatu neen c'est vrai mais nag boo yore pouvoir da nga xam yaa ko yor peut-être nag da nga koy teg yoon doo jalgati comme ni Macky Sall doon def mais tey jii xeex ba jot ci pouvoir yomb na mais se maintenir au pouvoir moo jafe maanaam nan ngay def ba sax ci pouvoir moo jafe. parce que tey jii y les les éléments perturbateurs ñoo xam ne tey buñ la bu bu bu seen ma matoon ñu salfaañu nguur gi te loolu ñi ngi ci ñi ngi ci te Abass Fall démb dafa dafa wax wax ju neex ju reelu dem na Abdou Mbow musuma gëm ni ni mu gàttee bi ma liire poste bi noonu la xelam gàttee gàtt xel rek moo tax Abdou mbaw mën a bind question écrite di ko jébbal Ousmane Sonko di wax mbiri ay xale yi dee te ay te ñoom ci seen nguur ay junni ndaw des ci géej gi xam nañ tey nguuru sonk ak Diomaye sax ñi ngi jéem sax def ci sécurité maritime maanaam bari na ci tey jii ñoom buñ góor wuroon maanaam police bi nekk ci géej gi lii dee ci géej gi dina ëpp lii est-ce que xam nga loolu lii dee ci géej gi dina ëpp lii mais ñaata gaal lañ jàpp yi waroon dem demuñu ñaata nit lañ sauvé tey ji ay quatre-vingts la mais ñi ay centaine de morts ci nguuru Macky Sall Bouba Boubacar Sèye fii la ci génne ab kayit ñu naan ab document confidentiel diffusion de fausses nouvelles la génne alors que rapport boo xam ne waa Union européenne ñoo ko def ci ñi dee ci géej gi ay Frontex nekk fi ay accords yi Sénégal li nekk de alal daan na dugg ci réew mi ci jamonoy Macky pour que ñu maintenir les jeunes mais alal jooju duggul Abdou Mbow est-ce que mës ñu ci bind une question écrite sur ça il l'a jamais fait Abdoul Mbaw jox ma Abdoul Mbaw Abdoul Mbaw dama bëgg a wax ñu wax ñu kan mooy Abdoul Mbaw Abdoul Mbaw simple député la woon tey jii mu dem ba am ay daraja assemblée nationale Abdoul Mbaw ba ay takk der di dugg assemblée nationale ay militaire ay gendarme Amadou Mame Diop di leen fa dugal ñu militariser le parlement militariser le parlement boobu fa la nekkoon di toroxal ay naataangoo député am ci nguuru Macky sàll mooy nguur gi ëpp lu ñu def lever immunité parlementaire ci histoire Sénégal ñaata député leen lever seen immunité jalgati leen ñaata député lañ fi jàpp yóbbu ci yoon ba ci tey jii am na dossiers yoo xam ne ils sont toujours pendant devant la justice ay député la ñeel les députés du PUR Massata ak keneen ki Mamadou Niang je pense ah affaire Amy Ndiaye ñi bi maanaam assemblée nationale bi gën a bon ci histoire Sénégal mooy bii Abdoul ñoom Abdoul moo nekk ñoom ñoo fi xëy mu lereen seen nguur jeex na ñu yokk seen salaire di yokk seen i indemnité Macky defal leen ko pour bu ñu amee retraite parlementaire ñu kon ne di dundee alal réew mi te liggéeyalul réew mi ñaata proposition de loi ak projet de loi ñoo am si seen nguur ci loo xam ne dafa yitteel askan wi mbir immigration yàgg na ci réew mi la leel ci Abdoul Mbaw mu sa def rien du tout tey jii Abdoul Mbaw moo taxaw di théoriser biir assemblée nationale naan léegi di chantage le régime mooy boo leen bëgg bañee ñu def motion de censure léegi dañuy def proposition de loi boo xam ne léegi dañuy fexe ba ñun président de la république du amati doole pour mën a tas le parlement après deux ans parce que moom mbir mi du peuple bi du intérêt wu régime bi du daal mbir mi mooy intérêt Abdou Mbow moom parce que vice président la am na ay privilège am na ay ngëneel yoo xam ne biir assemblée nationale président sax amu ko maanaam di enrichir ci assemblée nationale bi maanaam confort jiite na fi groupe parlementaire vice président assemblée nationale maanaam Abdou Mbow day dundee assemblée nationale bu ñàkkee assemblée mënul doon ministre parce que bu mënoon doon ministre Macky Sall def ko ko bu mënoon doon leneen Macky def ko ko. mais Sénégal nagam Coura Macky moo mën a nekk député ku ne mën na nekk député wante dëgg te moom dafa jekku assemblée bi léegi majorité boobu mu bëgg ko utiliser di chantage état bi di dugg ci yu kenn xamul loolu tax li Abbas wax dëgg la mosuma xam ni ni mu gàtte noonu la xel mi gàtte parce que Abdou ma xel mu gàtt rek moo mën a tax mu def loolu yabu ko nag mais xel mu gàtt mais il devait se moom warul wax moo keneen ak keneen. pourtant may nañ ko occasion mu mën a taxaw di wax loolu te wax jooju nag ñuy wax yépp tey jii Sonko dem na fii Colobane Abdoul Mbaw ñëw génne ab liver maanaam ab vidéo yi ñu monté moom ay vidéo yi ñuy monté lay jël di ko indiwaat di ci lii exemple al al ko vidéo yi dañ ko monte du dëgg liñ ci def yépp du tus ñu ngi doon yoxoo Ousmane Sonko ñu ngi ko doon lii ñi ngi ko doon lee loolu nag problème mu niveau la problème mu xam-xam mais problème mu éthique parce que nit day am éthique nit day am éthique di ngor ak jom ak fulla ak jub jub jubal jubbanti fépp fu mu jógee rek nit desatu fa di nit boo amee da ngay gore boo ñàkkee da ngay gore ñun loolu la ñu yare nit day gore di nga da ngeen nekkoon ci nguur 12 ans mu neex lu ne ngeen am ko ci di ba daxal ma daa nguur gi jeex na rafet leen ci bu du lool da ngeen ci gën a ñaaw mais dama ko yàgg a wax boobu magee ngi nekk ci nguur man leen ñii ay baadool lañ ko seqal baadool bu jibee gàcce fekk tab yu ci du am jàmm te li leen dal mooy la nostalgie wax naa chronique bu mujj di paradis perdu moo dal ay yoroja moo dal keneen ak keneen moo dal keneen ak keneen parce que yenn wax yi bu ko nit ne wax ci pénc mooy yoroja waa ne non système système mu nag yi mooy système mu passif jël Sonko méngale ak Hitler Sonko bu doon Hitler mais Yoro Dia du exister Sénégal wax lu la neex def li la neex mën a toog sa kër mën a dem toog ci télé dem sa kër di naanaat ataaye wala ngay rat say nag di naan say meew ci jàmm ak salaam dara fekku la système boobu te nag bu nazi pour man sonk ak Diomaye liñ mayee sax moo ëpp parce que fi mu ne nii nag sañ tëjatuñ fu ab permanence maanaam tëjatu sénégalais koo ci gis tey jii mi ngay feex xelam di gën a dal damaa dégg benn waaye mu ne bac bi li am ren moo ëpp li amoon ci ñaari at yi ma ne ko seen xelal dal parce que ñaari at yi lan moo fi amoon coronavirus réew mi tàkk mbiri aji saar ñu de nekk ci ay incertitude kenn xamul foo jëm daal di nga dal jàng xale ñoo yar ñoo yey am bag waaye ñoo yey am ay mention ñoo yey sax mais xel mu dal parce que nag fi mu ne nii rombato dëkk bi ñu militariser ko maa ngi dégg ay nit ñu naan non militaire yi waruñu leen yóbbu ñuy joxe ay jiw ak ay kii mais mil mais takk deri FDS yi buñ joxe buñ joxewul ay jiw joxe ay lacrymogène ci nguuru Macky Sall fi leen Sonko ak Jomaay joxe ay jiw ñoom ay lacrymogène lan fa yoroon di ko dóor askan wi ah joxe ay jiw ak joxe ay lacrymogène di ko dumaa sa askan wala di leen dóori fetal bu gën lool tax ci 100 jours yi. man bu dee am na lu may reproché Sonko ak jomaay mooy gars yi ñu bàyyi ñiy lëmbe ci réew mi ñu ngi wax naan un ministre ñu ko topp pour haute cour de justice ceci ou cela mais état de grâce day jeex gi nga nguur gi doog ko fal lu mu def daggan na Sonko ak Diomaye nguur gi doog ko falu bu jumee sax ñu baal ko parce que li Sonko sañ ba dem ca Colobane taxaw ci kanam ambulance di wax ñu koy tàcc di ko déglu nguur gu bees la état de grâce la loolu nag Sonko il est très intelligent boo dégg mu naan man peuple bi laa amal affaire di nga loolu lu am solo la yaa ngi ànd ak peuple bi loo def dagan na parce que nag li mu def ca Colobane ab opposant sax ñemewu ko ab opposant ñemewul loolu ma gars yi jéggal de fii am am na clim de mais man maa yor sama tàngooru bopp damay <laughs> ñaq ba ñaq fu dara nekkul yaa ngi gis looloo tax loolu am na solo bu ko weddi laajal waajo fa demoon naan day filmer di lii du ma tudd turam parce que <laughs> gars yi bës leen bëgg man du leen ko may xale na lañ ko def ñun soxlawul la fi mais bi Sonko ñëwee li mbir mi métti métti déglu nañ ko wax na dem na ñu ànd ak moom ñàkk ànd ak moom nga gis liñ def ci mbay mi duma ci dellu si nga gis liñ def ci hôpitaux yi du ci dellu si waat nga gis leneen ak leneen lépp ci trois mois bu dund gi nga gis sur le plan diplomatique ni ñu redorer blason di Sénégal Diomaye di jël maanaam ñu lan lañ doon wax bu toogee waa ñoom ñoom Lat Diop xamuma fu mu nekk sax moom Lat job na na wuyu Ibou Dieng Ibou Dieng bu Guédiawaye Football Club na ko wuyu moom Lat Diop <laughs> bu ma déggee dina xam lan laay wax moom am na ca xam na coow na wee ngi ca Guédiawaye xoola yàlla bu toogee ak Poutine bu toogee kii xoola bi mu toogee ak Macron mais président bu mat sëkk Diomaye ci Afrique tey fu mu dem léegi dem nañ sax ba léegi di ko yónni ma leen di doxal ay mission ñenaan naan ay mission bi piège laa ak ay ceci ou cela mais la fait que rek ñu mën ko rek yabal mooy wóolu nañ ko te yaakaar nañ ni liñ ko sant war na ci mën a dox jàmm li waa ji doon wax naan dem dem uti ñàkk garaawul xamu li bon mooy bañ a essayer ut tey jii dematul fenn ñu koy xeeb demul fenn ñu koy lii mu ngay taxawal Sénégal fi mu war a taxaw defagu fi discours bu ñëpp naan discours ba wax na lu ëpp te gis nañ fi Macky sàll tëj suñ diggante ak Mali tëj suñ diggante ak Mali pour intérêt France ak CEDEAO def na ko li xew ci nguuram musul xew ci nguur ci Sénégal ay nitam bëgg a nekk fii ci trois mois yi duñu sonal Mansour fay ana contrat yu Suez ak SNO nan la demee ak SDE mu wax ñu Mansour fay nan la demee ak les infrastructures yuñ ko joxoon nan ko auditer pour xool les autoponts ñeneen ak leneen Mansour fay nan xool li jëm ci xaalis Covid beeg ceeb beeg suukar ji nan xool Mimi Touré wax na ko mu naan da koy porter plainte man looloo may metti benn. Thérèse fay mën a taxaw fee porte plainte Bara Ndiaye te moom Cheikh Bara Ndiaye mënoon te moom waroon dem wuy ji moom Mansour Faye tey ma mën a am fitu moom di porte plainte ba naan Sénégal mi ngi ci danger dans cinq ans dañoo bëgg a delloo si Macky Sall ñu bàyyi ko c'est du n'importe quoi ñu naan ay ministre de justice Ismaïla Madior sañ a ñëw wax ci mbiri Fulbert Sambou ak Didier Badji lu kenn waxul mu nga tëdd këram di naan ataaya di nga Macky Sall bi muy doog a fal waa PRS di ko lii dafa jël Bara Gaye na ko tej tee jël Toussaint Manga na ko tej tee jël Amadou Sall na ko tej tee doxal di nga bon ne yow premier mandat pour nga téye ko da ngay fexe am assemblée bi sa loxo di nga en 2001 bi lay Wade falo collectivité locale yëpp pees yor ko ak seen coordination yi parce que pees loolu moo yor seen doole Ablaye Wade xam ne réew mi bu ko continuer di yor te yorul les collectivités du du mën a dérouler yéen a ngi fàttali ameen amendement Moussa Sy bi nekkoon jëf jël te mu nekk léegi ci Khalifa Sall moo dugal amendement ñu dóor ko mu daanu ñu def ay bu ma juumul délégation spéciale ci maire yi tëggat élection libéraux yi jël maire yi pour mën a doxal parce que bu loolu tax référendum bi jomaay jëm peut-être man peut-être gësuwuma ci bu baax mais daal lépp lu mën a doon pour ñu mën a gouverner ci cinq yi seen projet bii ñu sumb ak sénégalais yi di ko Sénégal pour ñu mën ko dérouler man li ma fi gis pour man warul continuer ñoom ay Abdoul Mbaw kon ne di nekk assemblée nii maire Benno yi nekk fi di saboté foofu laa dikkee ci ambulant yi pour man pour déstabiliser nguur gi yépp pour man du jomaay moo du buggaan moo leen mën a destabiliser gëwma loolu gëwma loolu du Abdoul Mbaw moo leen mën a déstabiliser gëwma loolu du keneen a keneen moo leen mën a déstabiliser mais dafa am benn moyen bu am njëkkee nañ ko ci mbiri général Kandé mais doxul journal boobu sax di Afrique confidentielle bindaat na ci loolu dama la xëbal yëg mu njëkk wi dafa daf cee baax jikko bi ci turbine bindee ak quotidien ñu woo seen directeur de publication yi bii ah journal boobu mu ngi bind ba léegi xaw ma ku ko nag ci dëkk tubaab yi Afrique confidentielle la tudd mais tubaab ya nekk ci ginnaaw ba léegi ñu ngi agité ci mbiri général Kandé mais sénégalais yi topp ñu leen ki mais dafa am benn mbir bu am mooy mbiri ambulant yi bu ko kenn xeeb bu ko kenn xeeb mbiri ambulant yi ngay gis ni bu ko kenn xeeb xamul lu tax ma leen bu ko kenn xeeb démb dama dégg ca Dakar Plateau ñu ne ambulants yi ñu ngay xeex bi ma xoolee ci réseaux sociaux yi gis ko ma dem rajo déglu ci pour xam réelement lan moo xew ma dégg un reportage kii def journal bi alors boo nekkee présentateur yàgg présenté da ngay xam mu mu chapeauté mu ne ñi yor kaaraangeeg Dakar Plateau mairie bi ñooy joteeg ambulants yi ca marché Sandaga parce que opération de déguerpissement la ñuy def bi ñu waxee loolu ma déglu reportage bi ñu lancé reportage bi mais ci biir reportage bi nit ñi waxu maanaam ñiy wax waxuñu ci sécurité bu Dakar Plateau mairie bi. ci Sonko lañ doon wax loolu tax ma ni manipulation boobu moo gën a garaaw te gars yi duñ ko seetlu mais man nag du ñàkk li ma doon def journal ak yooyu moo tax ma koy seetlu bu dee maire Dakar Plateau dafa jote ak ay ambulants lu ci yoon Sonko ak Diomaye mais ñi jox kàddu Sonko ak lañ doon attaqué opération de déguerpissement bu maire Dakar Plateau def depuis acte trois décentralisation les communes danoo nekk commune en plein exercice lu tax bi leen joxee kàddu giñ ñu ko ville de Dakar parce que depuis acte trois ville de Dakar gàddootul loolu Alioune Ndoye la nga ko war a jiiñ loolu tax Alioune Ndoye tey def na conférence de presse tontu leen pourquoi ci biir reportage yu rajo yooyu Sonko ak Diomaye rek lay wax kenn du tudd Alioune Ndoye kenn du ci tudd ñu yor sécurité bi mais danaa Sonko ak Diomaye jiguñu woon Sonko ak Diomaye danoo diggoon ambulants yi ne leen est-ce que dañ leen diggoon ni fu leen neex lal ku mës a dégg Sonko wala yi ne ambulants yi fu leen neex lal nan wax lal ba ci lal ci kaw tali bi amul mais la fekk que ñuy manipuler l'opinion parce que comment le présentateur peu dire agent ville kii Dakar Plateau yi ñoo joteeg ambulants yi ak tablier yi mais ci biir reportage bi doo ca dégg agent doo ca dégg maire Alioune lu tax Alioune génn tey tontu kon xam na ni mbir mi moom la te moom nee na fekk mbir mi mi ngi koy mën di def te nguur dina ko def te Alioune Ndoye mi moo dem ca may Maïmouna Ndour Faye baat boobu ba léegi dama koy fàttali ne nguur gi deux ans laa leen may Alioune Ndoye yoru militant bu mën a yëngal nguur gi bu dee parti socialiste demul élection ba am doole pour mën a yëngal nguur Alioune Ndoye lan la yaakaar. est-ce que nekkul mbiri ambulant yi leen bëgg yëngal pour jaxase leen ak nguur gi nguur gi nan ñu yeewu te xam ñin ko séqal parce que dafa am ñaar mille 2004 2005 ak 2008 di nga les émeutes de la faim wax na wax naa ak sama chronique bi passé am koy waxaat les émeutes de la faim yi amoon en 2008 moo indi local 2009 Pape Diop daanu socialiste yi jël ndakaaru ak Benno Siggil Sénégal loolu lay doxee ba nguuru Abdoulaye Wade en 2012 ak 2009 moo indi en 2011 dëkk bi yëngatu courant bi coupé ba nguur gi jaaree fa daanu ñu bari ñu ngi wax 23 juin mais avant 23 juin dafa amoon les semaines de la faim foofu la lépp tàmbalee 23 juin xëyru rek am mbiri ci ay ambulants la tàmbalee. nag boobu dañoo nekkoon ci terrain nekk ay reporter man mi mën nañ ma jàpp. mais boobu melul nii boobu dal lay jàpp doo egg sax police ci yoon bi après ñu bàyyi la boobu Macky Sall moom ñëw def yëpp dof yoo xam ne jàpp nit ci manifestation tëj ko 11 mois 8 mois ay entreprise terroriste mais boobu yooyu amul waat parce que Ablaye Wade nitu droit la woon. nga dégg ci Kër Massar ay ambulants génn non danuy def manifestation dal ci sonk ak Diomaye Sonko ak Diomaye danoo jiiñoon les marchands ambulants de Kër masaar ni fu leen neex lal fu leen neex lal loolu ban réew la am ci àddina piéton ak tali kenn du ci la léegi li ñuy nappee nguur gi mooy boo leen deful nank dinañ jug te man dama gëm ni di nga ñooñu di wax ci marchand ambulant yi parce que nag les organisations yi nekk ci marchand ambulant ñun xamoon nañ leen te dama ci dégg benn information du ma jaar ci tur dafa am koo xam ne dafa ne nita ma ko wax ah te ki nekk ci média mooy dañ ko jox vingt cinq millions pour mu séddale ko wala trent bi ma ko waxee ma ne ko gëwuma ko kooku day sóob mais avec ni mbir mi doxee heure boo xëyee ñi xam dafa mel ne xaalis génn na ay indice laa joxe nag xaalis génn na te kooku wax loolu dafa jiite woon ay ambulants heure bu ko neex daan na dugg ci nguuru Ablaye Wade xaritu Macky Sall la woon. te yooyu yu jara lijjanti la loo tax war na laaj enquête lan la laaj investigation bu leer xool ñii di jug di yëngatu lan moo leen di yëngal est-ce que nekkul daa am ñu nekk seen ginnaaw jox leen xaalis na leen ñun mënuñu dara ci nguur gi léegi qu'est-ce que vous allez mooy da ngeen di organiser wu jël question ambulant yi def ko un problème national moo tax nga dégg ay activistes ak ay journal bind naan am na ci ay ambulant ñi dee ci géej gi. parce que ñoom dañoo gis ni moyen boobu rek moo fi nekk pour jaxase nguur gi ak ndaw ñi parce que nguur gi ñaar dama leen koy xelal mooy bu ñu toog mukk ci kanam Sénégal yi di leen digle dinañ fexe ba immigration jóge fi jigéen Sénégal bu meloon ni bu meloon ni réew yi dàq ci àddina du tee ay nit dinañ fi jóge di jéem a tukki loolu loolu naturel la phénomène la bu naturel ci àddina tey ji boo jëloon Sénégal def ko dorado def ko paradi dina am ñu jël gaal yi dem loolu tax bu ne mukk dañ koy jéem a arrêté nañ ci jéem lu ñu mën créer ay conditions agriculture fexe ba jox ndaw ñi xëy mais aussi jox ndaw ñëpp xëy mënuñu ko parce que amul formation jéemoo dara li ma sam benn waajur doon wax naan Omar est-ce xam nga ne réew mi bu neexoon ba mel ne àddina am na ci ñu mu dul neex sam papa ma ko doon wax mu a man ko lu tax mun ne parce danoo jéemul dara. munoo parce que ma dar dar bu darul kenn dar boppam mais am na ñoo xam ne da dar daruwuñu maanaam bu réew mi neexoon sax du neex ci ñoom parce que ñu amuñu volonté pour def dara pour mu dox loolu tax dinañ jox ñëpp xëy y toujours des chômeurs dans ce pays maa toujours des chômeurs dans ce parce que nit ku dund ba am yenn at yi amul métier lan la mën a def mooy dem bay te ñu bari ci ñoom nangu nu bay mais beneen bi mooy nekk butigu mbagg de lan lan wax ci xayma yi mujj yi de scolarisation bi am mooy bari na ci ndaw ñi xale yu góor yi bàyyi jàng am na ñoo xam ne danoo benn seen waajur mënatu ko wala ñu dem ba dëgër gis ni buñ jugul du baax peut-être ñoon dooma leen yëkkati mais ñu jël ab réew te loolu Macky Sall la ko def bëgg ko jakartiser la jakartisation maanaam ñëpp bëgg di dawal jakarta loolu du développement li ñu jotee rëcc rëcc na leen am na ñoo xam ne kenn mënatu leen jubbanti mais li nekk seen kanam nañ fexe ba former jeunes yi ji nga domaine bii di agriculture ñu fexe am na ci li ñuy wax économie numérique ñu fexe ko développer parce que foofu la àdduna bi jëm parce que am na métier yoo xam ne doxatul te fayatul parce que adduna bu dee dox da ngay dox ànd ak moom léegi loolu nag borom xam-xam yi laa koy bàyyi ñu xalaat ci def ay perspectives xool fan la ñu jëm. mais question wu ambulant yi nañ ko vérifier xool lan moo nekk ci ginnaaw nekkul rek ay boy yi ni dëgër pit ak di leen fi jëlee parce que yow mënoo joteeg Alioune Ndoye ñëw di dal ci kaw Diomaye ak Sonko kan moo la manipuler kan moo la jox kàddu kan moo la jox micro bu la neex nga opposé bu la neex nga bañ mais bari na ci organisation yoo xam ne ñi leen yor da leen di mbubboo dañuy mbubboo ambulant yi daan ci doxal seen mbir tey jii nag lan mënoon am ci Ablaye Wade ci booy ambulant yi mënul ko am ci Macky Sall loolu lan mënatul am ci nguur gi parce que nguur gi du nguuru dóorkat du nguuru tappale du nguuru ay menaces du nguuru ay chantage nguuru jub jubal jubanti la ak liggéey ak doylu bu dee am na lu may conseil Diomaye sonk foofu laay tëjee ginnaaw jub jubal jubanti fulla fayda jom ak fit bari taxutu mën a jam fit mooy jam waaw loolu nag am na li muy wundu kon di jégalu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di gërëm ñëpp di leen sant Abdoulaye Diallo Abdou topp uh, ak uh, El Hadj du juuf ñoo nekkoon ci régie bi kon Omar bun Xattaab gi ci kàddu gi kon beneen alxamis incha allah.